وترجمها مثلا بين آيات الأحكام وآيات الوعد وآيات الوعيد وآيات القصص عدت آيات القصص يبقى الأسلوب القصصي أسلوب عجيب جد عجيب méthode nettali da di loo xam ni dafa kéemtaane dafay naa nettali naa ko marraat wa karraat ci suuratu Shuara gis nga doomu aadama bu doon génn ci mbedd mi mu romb ñetti nit wala juróomi nit mu taxaw di waxtaan moom xamu leen xamu ñoom fu ñu dëkk la ñuy waxtaane yooyu nekku ci waaye gis nga la ñuy waxtaane ni mu kéemtaane da ngay gis faaw mu taxaw diglu mbaa mu sàcc déglu mbaa mu dox ci geesu parce que loolu toll yaa nit la noonu la yàlla bindee nit mooy nit dafa bëgg ab nett li comme nag nit dafa bëgg ko nett li loolu moo tax bindkat yi écrivain yi dañuy bind ay histoire diw histoire nangam ay léeboon ay léppoon ay réer poésie parce que nit dafa bëgg loolu borom bi nag subhanahu wa taala ala yaala man xalaqa wa huwa latiful xabir aji gëm yàlla ci comme naxata kandang yooyu xasaw kasaaw yooyu dañuy tere nga di ko déglu parce que dafay yàq xol te wax dëgg yàlla ku fekk nit muy macc këriñ nga ni ko yàbbal sa këriñ gi baaxut doon na gën a baax lool nga jox ko tàngal mbaa suukar ni ko maccal bii bii ko loolu su borom bi defar moo tax boo xoolee alquran al uslubul qasas yi da cee bari lool mooy méthode nett li léegi gis nga ki nga xam ne moom affaire aar moo ko neex wala affaire artiste yooyu wala demee noonu gis nga kooku buy toog di dégg ku ci nit ñi ay raconté ay histoire wala ki nga xam ne football moo ko neex ci misaal gis nga bu déggee benn waaye bu aay loolu ci affaire football di ci wax day concentré wu di ko diglu comme ni ñuy dégloo alquran parce que loolu ko intéressé gis nga ki gëm yàlla suñu koy nettali concentration bu ko raw la war a am parce que walladina amanu ashaddu xubban lillah bëgg ki ñu bëgg yàlla moo gën a war a tar bëgg gu keneen di bëgg leneen te la shakka al muhibbu la yuxaalifu xabibahu aw aqulu la yastatiu an yuxaalif gis nga ki bëgg du mën a juuyoo kam bëgg moo tax gis nga nit ki su bëgg yàlla am wéree dëgg-dëgg mooy yàlla dootu ko yombati li ko war mooy al muhibbu la yastatiu an yuxaalifa xabiba ki bëgg mu wér na ni kii bëgg na dëgg-dëgg mënta juuyoo ak ki nga xamante ni mooy ab soppe mënu ko du ko man waxuma du ko def de xam nga du ko def ak du ko man bokkul du ko def mooy du ko def waaye mën na koo def du ko man mooy dëkk dul sax mën a essayé ba di ko def moo tax bu fekkee sa bëgg yàlla wér na dëgg mooy yàlla dootu la yombat donte nag du ñàkk nga di ko def ndax kullu bni aadama xam ko suñu wax wàcc na Suleymaan ak hut hut ak Balqiis borom ne wala qad arsalnaa nun yàlla ñoo yónni woon ila tamuuda ci giir gu ñuy wax giir ak tamuud axaahum seen mbokk ma saalihan di yonent yàlla saalih yàlla mu ni man maa yónni woon ci giir gu ñuy wax giir ak tamuud yonent yàlla bu ñuy wax saalih allahu akbar li lay wan ni àddina bi yàgg li lay wan ni sunu borom boo ko moom li lay wan leen fii jaar rek jàll li lay wan ni sunu fan daa gàtt yii da cee bokk giir ak tamut boo xoolee alxuraan ba alxuraan rek bu ko yàlla tudd ca laara ca huut ca xijr moo leen saa yi sunu borom tudd giir ak aar da koy lënkale ak giir ak tamut wa aada wa tamut ak aar ak tamut ci suuratu wal fajri ba ci mujjantal ko borom xam-xam ñu ni seetlu boobu li ko waral mooy giir aat ak giir tamut dañ di ñaari giir yoo xam ni waa ahlul kitaab amuñu seeni information yu doy diine yi jiitu woon lislaam xamoon nañ ay abraham comme niñ koy waxee ñoom muy ibrahim xamoon nañ ay ismail xamoon nañ ay isxaq waaye histoire aat ak histoire tamut boo leen ci laajal ay innocent lañ tey doon duñ ci xam loolu nag yàlla la soob mu nëbbu leen su ko defee histoire giir ak aat ak giir ak tamut ñoom ñaar comme ñu ay innocent lañ ci borom bi boole nañu ko ñun ci ko dajale ba ci suuratu Shuara xissa yi ma nekk li defe naa netti woon naa ko fekkoon suuratu Shuara kon da nga daal di am koo jàpp pour mën a jàpp ci lii collu soo sax collu si ñooy ànd giir taxu may jóg tey waaye waxoon naa ko ci suuratu suhara dañ koy tafsir ba leen yàlla alagee te nan leen alagee da ngeen gisoon ko ci suuratu suhara borom bi ci la daal nag léegi nag yabal yonent yàlla Saalix ci giir gu ñuy wax Samuud giir gu ñuy wax Samuud gis nga Samuud ci giir yi ëppoon doole ci àddina bi gën a mën a gudd fan lañ bokk bokk na ci firnde yi ahlul siyar dañuy wax ni ñoom dañoo demoon ba li tawaral ñu yett montagne yi di ko dëkk dañoo demoon ba nit doo tabaxee lu tabax bi te xam ngeen yéen a ma gën a xam ni waxuma la tabax yàgg waaye ciment yi ciment yi mille neuf cent quarante cinq ya xam ngeen ni bokkut ak ciment yi deux mille dix yi xam ngeen loolu ndax am na bâtiment yoo xamante ni mille neuf cent trente neuf la ko taxoon ba tey te mi ngi dëgër parce que ciment yooyu ak terre yooyu ñoo gënoon a baax waa bàyyi yooyu wàcc loolu ndax boobu ciment amagul façon tabax yu njëkk yi ñoo gën a baax c'est-à-dire que nit mën naa tabax kër kër gi am ñaar téeméeri at ak juróom fukk kenn ci ñoom day tabax kër kër gi am ñaar téeméeri at ak juróom fukk xëy daaru ci sa kaw te deewagoo maanaam kër gi daan yàqu ci sa kaw ñoom ñu dem ba gis ni comme yàlla ñoom day guddal seen fan sàkket moom ak mbaar taxut di wax loolu mu yoru leen waaye tabax bu ñu tabax lu mu dëgër dëgër dëgër nit mën naa dund ñaar téeméeri at ak juróom fukk tabax nga xëy daanu ci sa kaw rayal te waroo dee ñu ni kon léegi nañ ñu pexe nañ seet beneen solution bu dul tabax ci la leen yàlla yenkee wala wa tanxituuna min aljibaali buyutan faarihin dañuy ñëw ci montagne yi wa ma adrakum montagne yi ni mu ni mu dëgëree assummu saaliqaat arraasiyaatu fi l ard jaalaha allahu rawaasiya fi l ard nga xam ne lu dëgër dëgër bañ def la ay kenn pour nga téye suuf si ñu mën caa yet defar ci saal saal de bain waañ lépp ñu ngi koy defaree ci biir nga xam ne foofu moom dañuy dund ba dee bàyyi ko fa moo tax sunu borom di wax ni wa sakantum fi masakin alladina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal fa tilka buyutukum xaawiyatun bima zalamu kër yaa ngi nii wala xam nga kër yaa ngi nii muy joxañ lu tax parce que kër yi lan màbb bokkut ak kër yi nga xam ne màbb joxañ yaa nga ko fa tey moo tax ba yonent yàlla bay romb ca yoon wa dañu saxaaba yi ku fi jaar te sa xol tooyu te mënoo jooy bul fi jaar teggil nga jaar beneen ndax ñii kat aw nit la ñu yàlla bugaloon yàlla subhana taala sunu borom yabal ko ab yonent bu ñuy wax saalex saalex sëtëb yonent yàlla nuux la daanaka bu sët bu jege lool ndax ñoom seeni fan day gudd moo tax fan yu gudd yaay tax ngay defee dañoo sore waaye sëtëb dégg nga fan fan yu gudd yi mooy tax ñu soree waaye sëtëb noox la bu jege ahlu siyar dañuy wax ni daanaka boo dee xool diggante saalex ak saam mi nga xam ni moom mooy maamu saalex xëy na ñeenteelu maam lay wala juróomeel maamam te saam moom xam ngeen ni noox alayhi salaam moo ko jur borom fan gu gudd woon ak daaw bu yàgg saalex ñëw di leen waa gis ngeen ca suratu Huud comme ni ma ko jëlee suuratu Shu'ara wa ilaa Samuuda axaahum saalihan qaala yaa qawmi i'budu llaha maa lakum min ilaahin ghayruhu huwa alladhii huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiihaa fastaghfiruu thumma tuubuu ilayhi inna rabbii qariibun mujiib yéen nañ ci giir ga yéen ci yàlla Saalih mu ñëw waar leen di jaamu leen seen borom seen borom kat moo sàkk kaw suuf indi leen di coloniser leen ah ragal leen yàlla te ngeen jaamu ko te it nag ngeen tuub jëm ci moom ndax suñu borom kat xariib ku jege la ku bëgg a jàpp-jàpp mu jiib kuy nangu la ku woom wuy la ah yéen yàlla saare commencé di woote suñu borom ne wala xod arsalna nun yàlla ñoo yónni woon ila samuuda ci géej bu ñuy wax samuud axaahum seen mbokk ma gis nga seen mbokk ma lu tax borom xam-xam yi ñu ni yonent yi yàlla doon yónni wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi yàlla buy yónni du fekk ay séeréer mu leen jël ab keneen koy làkk leneen yónni ko ci seen biir déedéet du fekk koy làkk wolof mu yees yonent buy làkk ay anglais mu yónni ko déedéet illa bi lisaani qawmi day làkk làkk bi nit ñi làkk loolu da nga ciy déggee fépp moo xam xutbay juma moo xam alquran di ñuy jàng yëpp dañ ko war di tekki pour nit ñi xam ko parce que bi lisaani xaw mi ci làkk bi nit ñiy làkk amaana rek aji gàtt àll wa ji naan yonent bi daawul arab rek naan def xutba waaw yonent bu defal arab xutba ci lu mu koy def leneen damay laaj yonent bu defal xutba ci arab ci lan la koy def laay laaj yow koo xam ne ay arab la jàkkaarloo bala boo mën dem sax moo ne da ngay génn di tàng làkk arab bi boobu làkk la arab lay làkk beneen bi ci des dañoo xamul ni dafa am mbir yoo xam ne da nga amul woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne waaw amul woon ndax wax nañu ko may la waaw mu tee mu am nga ni ma ñoom dañ koo amul woon moo tax amul woon may la waaw buñ ko amoon dinañ ko jëfandikoo wala duñ ko jëfandikoo nga ne ma buñ ko amoon duñ ko jëfandikoo parce que baaxul ma ne la kon bàyyi bi daal nga ni ma anam kay buñ ko amoon dinañ ko jëfandikoo may la kon dañuy xool bu amut lenn lu ko lislaam di tere kon dagal nañu jëfandikoo boo ko tuddee bi daal yaa xam dara amoon na wala amoon nga ni ma amoon na kay est-ce que daanañ ko jëfandikoo nga ni déedéet ma ne law kaana xayran la sabaquuna ilay bu doon yiw la dañu cay jiitu gis nga bunt bi bunt bu am solo la boo xam ne mën nga cay nattee luy bidaa lu dul bidaa al imam Shaatibi alayhi rahmatullah am na benn téere bu am solo bu mu taal tuddee ko al i'tisaam al i'tisaam boo ci delloo andi na ay taarifaat yu am solo ci leeral lan bal damay wax ni moom bu la ci yàlla defalee tawfiq mën ngaa comprendre bidaa ba keroog ngay dee lépp luy bidaa lu dul bidaa di ko xam ne kon bi ñu daanee xaw mooy làkk bi nit ñi di làkk ngir mu làkk leen ko ñu xam mu xaqiqoo ni ci borom xam-xam dafa ne même bu dee xutba jumaa bi lu mu ci mënti door tàmbalee ci bas wala julli ci yoon ci bi jàng ay aayat waaye bu la neexee la ci def lépp làkk ko làkk ba ak làkk bu mu mën a doon ci làkki addina bi loolu mooy li gën a wér gën a dëgg aqaawum seen mbokk ma saalihan di saalih muy leen an yaabudullaha jaamu leen seen borom ah ba mu leen waxee loola sunu borom ni fa ida hum daal di gis ñoom fariqaana ñu nekk ñaari kuréel yoo xam ni yaxtasimuna ñi ngi tàmbalee jàmmarloo di xuloo dëgg la avant fa ida hum fariqaan moo tax bind tafsir bi ba mu topp ci saar yi passé buñ la dul dimbali tuuti da ngay réer ndax li tax ngay réer mooy saar yi dañoo amul jokkalante boo xam ni dañ koy indi ba fii dog ko fa pour war koo mottali ji saar sàngam ndax daf leen a woo rek fay daw fariqaan yaqtasi moom déedéet daf leen a woo di leen waar bi mu leen leen waar bokk na ca lañ koy yaa Saalix laqad kunta fiina marjuwan qabla haada commencement bi tëbuñ rek indi coow dañ ko wax ni ko yow de Saalix commencé woon nañ yaakaar la qabla haada avant tey yow de xale nga boo xam da ngaa commencé yow ñu amoon ci yow yaakaar. yow amul loolu ngay dikkee lu dul di weddi li ñu nekkoon loolu mooy lii xew tey nag da ngay si yenn kër yi dañuy am doom yóbbu ko mu jàngi pour defar ko ngir bu dikkee remplacer seen baay li may wax lu nu xam la dañuy waajal waaji defar ko préparer ko pour ah kër gi waaji dem jàngi ngalaat gi nga xamante ni yonent yàlla bee ko yore laat gi nga xam ni wala lu mu tëdd mbaal ko yonent bi yore sama muy mbaalam sunna mbaal ko bu ko defee gis nga ñoom mën nañ laa boo amul sens mën nañ laa topp ba njabar la sax ngir nga bàyyi li nga nekk ñëw ci ñoom liñ la doon préparé ndax ñoom kat dañ naan la xas kunta fii naa marjuwan qabla haada dañoo yaakaar ni yow di nga aw fari bi di nga aw yoon wi di nga aw nangam moo tax ñu yabal la nga jaay bi far nga dem rek mbaalam sunna gi moom mbaal ko te yàlla moom yahdi bi fadlihi man yasha ah bi loolu amee coow commencé sa karnaase Saleh continué woote gars yi di ko gëm waaye ci woote bu tumuraanke nag ah faridaahum fekk ñoom ñaar ñaar dëkk bi fariqaat ñu nekk ñaari kuréel yoo xam ne yaxtasimuuna ñu ngi jàmmaarloo di xuloo alxaafis ibnu kathir ca tafsiram mu ni fariqaat bi ñaari kuréel yi mooy ñi gëm Saleh dëgër këcc taxaw nag pare pour défendre seen bopp waaye ñi nga xam ñoom ñoo gëmul saalex pare pour jàmmaarloog ñoom lii nag mooy sunnatullahi fil ard daawul mu ko yëkkati ña ko gëm dañuy dëgër këcc waaye ña ko gëmul dëgër këcc ca lañ nekk fa seenee xeex ak ñoom moo tax loo nekk su dee dëgg la nga di ca def ay fitna fitna yooyu yu oyof la par rapport ak njëkk ña lañ doon def te it bul fàtte ni ngëm yàlla bu xasee tàbb ci xol daf tay def loo xam ne da ngay taxaw taxawaayu mën a duma fukki nit moo tax najaas yi ba mu laajee amr ibn al-aas question yu ñor yi nga xam ni buur bu Muusa koy laaj damay laaj ndax yonent bi mas ngeen koo xamee wax lu dëgg balaa wax lu dul dëgg balaa muy woote wala déet Abu Sufyan mu ni vraiment fen fen góor du ko def ne kon dinaa fen keroog ni ko daana wax lu dul dëgg mbokk yi déglu bu baax Abu Sufyan yéefér la ñu laaj ko loo xam ne bu topp woon sabaan mën a am poñ ci yonent bi mu mën a fen pour am poñ mu ni déedéet góor du fen moo tax du ma fen te yéefar la góor du fen ba mu yéefar su fekkee yéefar nee na góor du fen ba tax na moom du fen fa kay fa ka julit bu gëm yàlla mu ni ko waaw mbooloo mi yonent bi day yokk wala day wàññeeku mu ni ko mbooloo mi day yokk bis bu nekk mu ni ko dëgg saa bu ma see wàcc ci kaw suuf noonu lay mel mbooloo ma day yokk waaye di wàññeeku mu ne ko ñi ko topp dina am ñuy murtat di génn wala déet mu ne ko ay la yéwén kat kenn musu koo topp kon ñu génn na ci mu ne wa kadalika al imaanu ida waqara fi lqalbi hakada ngëm yàlla bu leen kës ni putti ci biir xolom dafay def loo xam ne day tax waa ji dootul mën a dëppati ginnaaw najaas yi ku ñor la buur la mu ne yii lay sukkandiku pour xam ni kon yéen li ngeen nekk du dëgg waaye Muhammad la muy woote mooy dëgg Saalix qaala mu ni yaa qawmi yéen sama nit ñi li ma tastaajiluuna lan moo tax ngeen di yàkkamte bi sayyi ati ci def lu bon ci lenn ci borom xam-xam ñu tekki ko def lu bon qabla al xasanati ba ñu ko jiital ci bañ a def def lu baax am na ñu ne déedéet li ma tastaajilu na bi sayyi ati mooy daf ngeen di yàkkam ci yàlla wàcc ci seen kaw mbugal firi moom a gën a dëgër qabla al xasana walis yàlla di wàcc ci yéen xéewalam yi ndax ñoom beneen saalix waaree ba noppi ñoom dañoo wax saalix ni ko ittina bi ma taaduna in kunta min as-saadiqin dañ ni su fekkee nee nga yàlla moo la yónni te yàlla am na mbugal mbugal mi na ñëw wàcc gis nga ab yéefar amut xel yéefar moom waa ji togoon ci kaw ba- banaas bi ba- carab garab xam nga waa ji yéeg ba ca kaw garab da bëgg cor garab gi mu dem ca car ba muy gor mu toog ca gis ngeen kii ni mu yàggee muus maanaam waa ji dafay gor ab car mu dem ba ca car ba muy gor nga xam ni car bi buy daanu muy daanu mu toog ca car ba di gor kooku moo di bi yéefar ndax am ne bu fekkee gëmoo sax ah defal la ñuy yéefar yi naan ndax defal na tarabbas bi rey bal ma nun na tarabbas bi ñu rey bal ma nun waaye jël ko ñu naan yàlla dañuy mbugal bu yàlla bu fekkee yàlla li ngay wax am na wàcc ñu mbugal mi suñu kaw waaye gis nga suñu borom nag maanaam kilifa gu mat kilifa la moo taxit man a waxi nit ñi du ko tax def lu mu nar ta war a def loolu ngeen bàyyi ci xel baax a baax gis nga patron nga xam ne am na possibilité dàq la évacué wu léegi léegi ci liste liggéeykat yi bis boo xëyoon tey ni ko eh bu la neexee dàq man faalewuma la gis nga doomu aadama loolu lay bañ tey la lay dàq balaa ngoon a jot parce que da lay wan ni man maay sa ceeb kon kon kon def na lu mu la ko wan rek loolu moo lay wan ni doomu aadama ko jëfandikoo suñu borom xamoo suñu borom maanaam suñu borom nit nit ñi seen yàkkamti yeeg seen bëgg yi am du tax suñu borom def lu mu war a def du tax mu def lu jotut tamit nag Saalix ne leen yéen day tamattaw fi diyaarikum salaasata ayyaam daalika waadun gayru makduub maa ngi leen jox rajo bu ñetti fan day trois jours laa leen lay seen biir kër yi dig la guddoo xamante ni du dañ yàlla dina wàcc dugal ci seen kaw ah law tastaghfiruuna allah tey bu ngeen jéggal woon yàlla la allakum turhamuun amaane suñu borom dana leen yërëm jéggal suñu borom suñu borom yërëm qaalu gaa yi ni ko tayyarna bik ñun sax dañ dañ daa gaafal ñun yow bi nekk yaay sunu gaaf wa bi man maaka ak ñi ànd ak yow yow da nga noo gaafal gis nga tawam daaw bi baaxul te daaw bi ba mu ko fi tàmbalee la nawet bi gëj a baax ñu ko tayyar naa bas maa tay ak tayra mooy gaaf gaafal sunu day tere gaafal gaafal mooy du ma tukki altine talaata lay tukki gaafal mooy jigéen bi su génnee dajeeg moromu jigéenam day dëppaat ndax nee na kon mooy bisam du neex gaafal mooy famille sàngam day bu ca kenn takk jabar ndax ñoom dañoo amut gaaf ku leen takk da ngay gën di ñàkk déedéet sunna day tere loolu yonent yàlla dina saw salam bokk na ci juróom ñaar fukki yi dugg ajana te kenn du leen xisaab mooy ñi nga xam ne duñu gaafal gaaf amul de lépp mi ngi bàyyi koo ci yàlla bu gaaf amoon yonent yàlla bi nee na su gaaf amoon ci ñetti mbir la am kër gu xat dana am mbokk yi ba mel ni quinze sur dix kër gu xat ba mel ni quinze sur dix gis nga gis nga yonent yàlla sàppalam dafa jàngale kër jullit dafa war a yaatu parce que jamono yi fitna su amee lépp lu jullit doon def ci mbedd bare dañu bëgg mu di ko defee ci biir këram moo tax ñu bëgg kër yaatu beneen bi ci nekk mooy kër gu xat day xatal xol wallahi laa kër gu xat ak kër gu lëndëm day xatal xol boo duggee fii ci réewu taar nga seetlu kër yi nga xam ne daanaka dafa xat quinze sur dix wala genn wàll quinze sur dix am na couloir yoo xam ne boo koy dugg da ngay taal laam bis bu ne daanaka nga dégg fa xuloo xam nga lu ko waral yàlla dafa bind doomu aadama bindal ko jaww ji xalaqalakum ma fil ardi jamia bakkan bi dafa aajowoo di nooyu ci air bii parce que dafay am lu muy def ci sox yam ak nafsa gis nga loolu su ko ñàkkee xol bi dafay xat su ko xatee ñaari baat nga xam njaay dafay énervé wu su ko defee mu daal di xuloo seetlul kër yu xat yépp da ngay fekk xuloo fa lay ëppee ci kër yu yaatu lu dul lu ñu yàlla dimbali benn bopp beneen bi ci des mooy gis nga boo dee seetlu ba bu yàggee doomu aadama feebar da koy yomb gis nga yàlla ñu bindee woon mooy am gis nga sunu sunu maam yi li ñu daan def ñoom dañoo amoon fulla da ngay gis kuy samp kër mel muy sa way kuy daggu toom ngam ngam kër boo xam ne say sëti sët dañ cay am loolu mooy kër moo tax yéen yàlla su gaaf doon am ci ñetti mbir lay am kër gu xam te dégg naa sax léegi quinze sur dix yi ñu ngi koy wàññiwaat nag gis nga lii système u yéefar la ngir sax xol di gaaw a xat ngir doo mën a dimbale sa mbokkum jullit fat ko sa biir kër ngir ngir ngir lan am na bu ci def ngir bul bari soxna ngir bul bari soxna ñu dem ba wut ay cité tuddee ko cité bëgguma am doom gis nga système yéefar bi léegi ñaari néeg ak waañ déedéet déedéet déedéet léegi ñu xew léegi ñaari néeg saal xew na benn néeg ak saal ak waañ ak duus léegi dem nañ ba gis nga ay moote moote gi def photo yi def nangam bu guddi jotee côté yi fële lañ koy xalaat parce que buñ ko defee dinañ fuñ tëdd te waaye mën a am possibilité am lu gën a yaatu loolu waaye gis nga système yéefar yi noonu la ñuy imposé su ko defee yow moom sa benn soxna bu ko defee bul bari ay doom parce que doom yu bari day tax gis ngeen gis ngeen gars yi boo génnee jógee tëngee jëm Dakar bala ngaa yegg Fass Mbao gis nga am na benn table bu ñu roob bu ñu bu ñu defar foofu table bi benn waay bu rafet ndeysaan macha allah xar kanamam gi rafet lool ndaw sa tamit kanaalika rafet lool doom ji tamit di lerat lerat ñu defar ko desee ne leen kenn koo ci xool rek da nga koy bëgg ndax ne ñu taar bi mu àndal gis nga ñoo koy def expéré espace de naissance comme ni ñu koy waxatee noonu loolu lañ ci def ma gis nga xam nga lu tax ñu taamu ñu rafetee noonu dañuy wan jigéen ji ni ko gis nga bu fekkee juróolu bari nii ngay rafetee góor gi bu dee juróolu bari nii ngay rafetee su ko defee doo gaaw a màgget doo gaaw a nangam wallahi du dëgg du dëgg de ñaar ñooñu affaire du dëgg de déedéet loolu ay takk ndeer la ay takk ndeer takk ndeer boo ca toppee di dóor da ngay sonal sa bopp takk ndeer boo ca dóoree da ngay sonal sa bopp Abdoulaye ibn Abbas daa toog ba mu yàgg benn waay ñëw ni ko man kat damaa gént diw fekk ma ci nelaw di ma dóor di ma dóor te affaire yi xam nga loolu dafa metti si xol na surtout bu dee koo xam da nga kaa compte affaire bi metti ko nag lool mu ne ko ah loolu jiw ci kese la waa ji toog wax dëgg yàlla xanaa yëpp da laa metti mu ne ko man kay dóor yi ma doon dóor ci nelaw yi damaa metti ah waa day metti nag lan mooy toog nag danañ Abbas ne ko kon bàyyi ba mu dem nga dóor takk ndeera mu jeex ba loolu ngay nga dóor takk ndeera parce que boo dóoree takk ndeera dóoroo ko moom ci nelaw dóor la jeex gis nga yooyu ñuy def du dëgg de wallahi du dëgg dañ koy def pour nax nit ki nii ngay mel nii ngay nangam déedéet loolu amut bal kay leneen li ci des waxuñu ko gis nga am na lu ci des jigéen ñi ngay séen nii ci mbedd yi ñu ci bari ah koo ci gis jàpp ni dafa am forme dafa am yaram dafa am nangam fekk déedéet pénis ñu ñuy utiliser pour ñàkk am doom dafay funkil nit ki di ko indil ay feebar fasalu ahla dikri in kuntum la ta'lamun gis nga jigéen ñi du ñu jug hôpital lu waral loolu parce que pénis bi ñuy utiliser ni yàlla ni nii lay demee nga naan ay doom yi ngi du demee noonu suñu borom ni li ma wax mooy am mbaa nga kon sonn la su ko defee jabat yeeg tànk yi metteeg tension yeeg doo gis fee nga newi fee nga funki fee nga parce que gis nga li yàlla ni fii lay jaar bàyyi ko mu jaar fa moo tax defarkati tan yi defuñu bu ñuy defar tay dañuy xool fan ndox ma doon jaar ñu bakk parce que def defub yàlla jàll rek lay sonal gis nga boo ko bàyyiwul yeneen mbir yu lay sonal mooy jëm si waat moo tax ñu dëkkoon fi am ndox te xam ko ba noppi bu ndox dikkee li waroon na ndox du romb yoonam kon kër gu xat ak soxna su bon soxna su bon hop soxna su bon gis nga soxna su bon mën naa tax a gàtt fan soxna su bon mën naa tax a gàtt fan xam naa boo ko waxee rek ñu ne lan mooy relation dox ci diggante fan ak yii yëpp lu xam-xame la gis nga doomu aadama ni ko yàlla bindee dundum xolam fépp xolam dafay def jeexintal ci mën a dundam wér gi yaramam ak ak naayee gis nga xol bu dëkkee di tàng xol bu dëkkee di tàng bu yàggee force bi mu doon war a jox énergie énergie bi mu doon jox yaram dootu ko mën a te xam ngeen ni xol mooy nit deret bi ci lay jaar di circuler mooy moteur bi dugg fii génn fii jox ñee huile jox ñee kii mooy xol bi gis nga xol bi bu dëkkee tàng dafay sonn te su sonnee ni mu doon fonctionné day wàññeeku te su loolu amee dund bi du mën a dund moo tax gis nga jabar ju bon jabar ju bon jabar ju bon baaxut baaxut day gàttal sax moo tax yéen yàlla mu ni gaaf bu amoon ci kër gu xat jabar ju bon waruwaay bu baaxut ak xënt xam ngeen xënt li yoo def nag xënt xënt ak moto xënt ak woto wala bi nee nañ saa boo amee sa xarit mu am alal nga bëgg mu ñàkk alal ja da nga koy conseil mu jënd xënt ak oto lii de mooy soxor dëgg-dëgg da nga koy conseil mu jënd xënt ak oto oto boo xam ne balaa tey dañ koo puus oto boo xam ne bu sëqatee rek la ñuy génn day suur ku ku ku may saqal yére gis nga boo ko defee ñaari ba ñett la nga amoon lépp nga cay def mu nga ñaar yéen ci yàlla su gaaw amoon ñett yi leen waaye nag amut fas gis nga nit ñi nag dañoo gëm esprit gaafal diw dafa gaafal diw boo dajee moom doo am lii yëpp déedéet islam xamut loolu islam xam nga lu mu xam tawakkaltu ala allah buusal nga dem sa yoon koo mën dajeel koo xam jeex na gars yi nag comme dañoo gëmoon gaafal bokk na ci liñ doon def mooy ku bëgg a tukki da ngay ñëw da ngay jël dàll wi boo sànnee dàll wi dàll wi jaamaan nga ne ah waaw lii de mooy leen tukki bi dana baax boo sànnee dàll dàll wi dëpp nga ne ah xërëm bi nee na ci mooy lépp yaa dëpp dàll yow yaa def rek xërëm mu ngi sa mësa mëral rek boo sànnee dàll wi dëpp kii xam nga dàll mën naa taxaw mu yëng nii nga ne ah lii de mooy wane ne xamut ndax gën naam gënul comme xaaral ma bàyyi ko noonu ba léegi yaa jam bi xërëm bi moom defut dara moo tax gis nga doomu aadama dafa yàgg dafay rek bu fekkee di li gëmut yàlla day dox léegi nga dem toogi wala nga jël benn picc daal di koy jëmale fi ngay tukki maanaam boo doon Dakar laa jëm nga jël picc mi rek picc muy naaw sànni ko bu continuer daw yoonu Dakar yi naaw yoonu baax la yomb na xaaral ma dox waaye boo ko sànni rek mu ni për rek gàdd bi nga ne yii lii wóorul mooy accident xaaral ma toogaan moo tax booy gaafal da ngay sonn bu léegi kenn du sangu bi sa àllarba maa ngi fàttali bi nekk daal àllarbay kare dinaa loolu ko àllarbay kare kenn du ko sangu te moo ne bu dee ñu sangu bu liir juddoo ñu sangu xam nga ki dee sa am problème parce que am dee na woon am problème waaye ki juddu ko bu kenn sangu ki juddu waruñu koon sangu moo tax gis nga nit ñi dañuy soob rek dañuy wax rek yooyu ñu wax yëpp ñu ngi def alhamdulilah sunna ngi leer ñu ngi koy wedd kon gaaw amul ci lislaam déedéet gars yi ñu ne ko tayyar naa bi yow lañ gaawaloon mën naa ak ñi nga àndal qaala mu ni leen tairukum gaaf gi day su dee am na inda allah fa yàlla la bàyyi ko te gaaf ga ca yàlla mooy dogal ya neex na wala naqari na mooy sunu borom dogal na bal li am kay mooy antum yéen qawmun ay nit yéen ngeen yoo xam ne tuftanu na da ngeen di bëri fitna ay nit yéen bi yu indi fitna wala nit ngeen yoo xamante ni kat yu nu fitnaan ngeen ah gars yi continué dialogue ak Saalix sunu borom di wax kaana fekk na mi ngi nekk fil madina ci dëkk bi tisaatu rahtin juróom-ñeenti nit yoo xam ni yufsiduuna fil ard ñoom dañuy yàq rek taw suuf wala yuslixuuna duñ masa musuñoo def duñ defar gis nga juróom-ñeenti ñooñu ka ca gën a siiw mooy ci rayon gileem ak Saalix ko muy Xudaar ibni Saani waajub bon jooju nga xam ne wér na ci xadis Cheikh Nasir bi ñu koy wéral ci Sahihul Jaami' yonent yàlla bi nee na Ali ta est-ce que xam nga kan moo gën a bon ci mbindeef yàlla yi ki gën a texee di mu ne ko déedéet mu ne ko ñaari nit lañ ka ci njëkk mooy ka rayoon gileem ak saalix ga ñaareel ba mooy ki nar a teppi sa fii yow ali ba nga dee mooy kat ki nar a ki ko nar a teppi fii moom ali abdourahman ibni maljam ñaar ñii yonent yàlla ñoo ñi gën a texeeri ci kaw suuf asqa al awalina wal axirin mu ni ko qaatilu naaqa ak ka nga xamante ni moom moo lay cor fii te gis nga faqat allahu akbar wa hada ah yusaddiqu nubuwata muhammad saa sallam nii la ko def ni ko ki lay cor fii tàmbalee ci baat bi ñëw ci ŋaam yi ka la ko dóor jaas bi parce que ñoom dañ doon dund rek pour xaar seen dee parce que gëmoon nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi gars yi bi ñu demee ba jaaxle ci saalix dafa fekk am na ay boy disco yu nekk ci dëkk bi te seen seen chef te foo fekk chef bandi nag deegu ñaaw ko toujours moo koy deere ndax mooy gën a gëriyee lu kenn dul ñemee moo koy jéem su ko defee alkaati di kër ko ca ku daal ibni saalix moo leen jiite mu nekk juróom-ñett nit ak moom fekk benn jigéen bu bañoon saalix lool tàqali ko borom këram am ñeenti doom mu ni saalix ku ko rey ma may la sama ñeenti doom yëpp ñu bokk ndey ba nga maye ndool nga jawaroo leen beneen jigéen ñëw mu ni man pare naa képp ku rey saalix nga ñëw nekk sama jëkkër kenn ku ci nekk di def ngir nañ fi liggéeyte saalix loolu mu yàgg na gis nga ba léegi day am ñi nga xam ne ñoo amal njariñ daaw bi te ñàkkal njariñ ñetta des dañuy def ay pexe pour liquider leen ci nii mbaa ca naan waaye nag yàlla dafa def moom yàlla ci boppam moo def bu ñu reyee am Omar day fekk téeméeri Omar judd nañ ca at ma bu ñu reyee am Osman ñett téeméeri Osman judd ca déwén sa wallahu mutimmu nuuri yàlla moom mooy motali leer gi moo tax yooyu sono sa bopp la rek kooku da nga koy yóbbu da nga koy teel a yóbbu àjjana ki nga xam ne mi ngi ci dëkk ba nga xëy rey ko da nga koy teel a yóbbu àjjana da nga koo noppal yow sono ko de wallahi da nga koo teel a noppal ndax dund ku métti gii ku ciy góorgóorlu ci jib ba ñu ñëw fab rey la teg ci tooñ la nga xam ne da ngay am shahada yow kay dañ laa noppal yóbbu la àjjana mu jeex kon kala raya sonn waaye yow sonn yow moo tax gars yi ñu ni sunu borom ni wa kaana fil madina nekk na ci dëkk bi tisaatu rahtin juróom-ñeenti nit yoo xam ne yufsiduuna fil ard yàq rek ci dëkk bi wala yuslixuun ñoom defar mu seen nit yàq rek tooñ agressé ay nit yàq seen alal yooyu rek xaaloo ñu ni taxaatamu nañu giñante billaahi ci yàlla giñal waa ji giñ mu ne ko giñal keneen ki giñ mu ne ko giñal keneen ki giñ ñoom ñëpp bañ a giñ mu ne nañu giñ ci yàlla lanu bayyitan nagu daañ ko rañaan xam ngeen rañaan rañaan mooy doxu guddi dox guddi dañ ko bett guddi dañ ko bett ci waxtu guddi lanu bayyitan nagu ñu ngi jógee ci buyuuta ah fanaan lanu bayitannahu daañ ko bett ci waxtu guddi wa aghlabu abwaatanam su ko defee ñu rey ko summa la naqulanna li waliyihi ñu wax ay mbokkam ni leen maa shahidna mahlika ahlihi ñun de ba muy alku fekkuñu fi wa inna la sadiqun te wax nañ dëgg gaaw gi nag wax nañ dëgg moom bàyyi fen rek gaaw gi ak wax nañ dëgg moo tax gis nga bu dee bu la yàlla defalee xikma waxkatu dëgg ak ku dul waxkatu dëgg nee ko jàkk mu ne la jàkk nga xulli ba di mu xulli la su nga yàlla def na ci tawfiq ñi xam doomu aadama dëgg nit buy wax mu la jàkk nga ne ko jàkk bul xeet ba pare ngay dégg li mu wax bu baax a baax a baax buy dëgg ak bu dul dëgg li nga ko mën a xam bu la yàlla defalee tawfiq loolu day am parce que bët bët ci moom bët lu garaaw la gis nga aji wax buy wax di taxalee ka tagala ngaay ngay enquête ak nangam déedéet fixé ko rek fixé rek bañ a daj bañ a bàyyi parce que bët yàlla dafa def lu garaaw loo xam ni lu ragloo ci nekk enquêteurs yi xam nañ li may wax waaye dina la fixe mu la jàpp nga ni ko jàpp bul xeeb bul watal bul watal benn xeeb muy wax nga di ko déglu ñaar dana mën am fen gi dana feeñ ci bët yi mbaa mu feeñ ci làmb ñu parce que ñoom ñaar ñi ñooy joxe kii moom day jël waaye ñaar yi ñooy joxe wa inna la saadiqun wax nañ dëgg wax nañ dëgg kii moo tax lay mooy la mbokk yu yu sa defoon ah wa inna la saadiqun akalahu zi wa nahnu asba ah ñun de dañoo dem wa tarakna yusufa inda mataina fa akalahu zibu waaw lu koy ma anta muminin laa di wut si jëru ba xam nañ ne sax doo gëm yow kay ba nga xam ne liñ la gëm koy loolu di waxate ko yaa ngi wax xam nga ne li ngay wax duñ la gëm kon kay moo lay waaye li ngay wax jubut ndax bu juboon war ngaa nag ñu gëm la moo tax léeg-léeg kilifa buy yable na moytoo may ñami yabal bunt buñ jaar ba génn comme ni ma ko waxoon démb ci dars yi gis nga ñoom ñii yaaqubaale may yoon wax parce que yaqub mooy damay ragal ci lii lekk gars yi alhamdulilah kon kay mu sekat li muy ragal kay war naa mën a nekk néewul fas wi néewul ñay wi néewul nangam till gi la wax la tax mu ne till gi mooy wane till war naa mën a nekk nit moo tax bañ dikkee ñu ne ko indi nañ ko waaye till gee ko lekk waaye nag lekk-lekk gis nga bu la yàllay gàcceel doo xam fu muy jaar ndax till naka la mën a ñëwee tijji say bouton sànni lekk sa yaram ba mu jeex te mbubb mi xotteekuwut pour waxtewu loolu mënta nekk moo tax boo dee enquête kat booy sukkandiku ci alxuraan ñu ne alxuraan ñëpp a ngi ci ndax ñëpp bàyyi bañ actee rek mu xool xool mbub mi gis deret da ca nekk ak deret dara bi àll bokk yi beneen bi ci des mooy tili guy ubbi bu tooy jaambur di lekk loolu mënta am beneen bi ci des mooy xanaa boog dina la saa saatee ngank la boog ba yëf yi furwaate waaye dara amu ci gis nga yëpp boo ko boole da ngay am sukkandiku pour xam ni gars yi dañuy wax lu amut ñoom ñu ni wa inna la sadiqun wax nañ dëgg sunu borom mu ni wa makaru ñu daal di tër seen plan wa makaru makran ñu tër seeni pexe wa makarna makran man yàlla ma def saay dogal wa hum la yashurun te fekk ñoom yëguñu gars yi dañoo bàyyi ba waxtu guddi jot ngoon jot ñoom juróom-ñeenti personnes yi ñun nañu rey yonent bi suñ suñu yonent yàlla saale suñ pare ñu ni yëguñu am na benn riwaaya dani dañoo daw bay ñëw ci yont yàlla saalix ñu romb benn montagne buy lang xam nga montagne la mu jékki-jékki sax montagne buy lang gaa yi nag eh mbaa ñu daanu suñu kaw kaay leen dugg gaaw ci xunt mi ñu daal di dugg ci biir xunt ma montagne ba ñëw daal di tap xunt ma ne leen seen bàmbee la ngoog daal dem moo tax ibni kathir ci tafsiram mu ni suñu borom a kéemtaane muy daal jël gaa yee tëj leen fee di leen buggal te ñii yëguñu mu jël ñee di leen buggal fee te ñii yëguñu loolu mooy wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun xeeroo wàcc mi ngi mel ni espace bii rek benn waay indi affaire boo xam ne soo ko indi woon day tëj espace bi waa ji nekk fël doon fu mu jaar génn moom mu fas yéene faa tudd xaar malakul mawti foofu ca biir moo tax suñu borom mu ni wa hum la yashurun kenn yëgul moromam luy xew suñu borom ne fanzur xoolal kayfa kaana naka la mujjee aaqibatu makrihim seen mujjantali pexe ya annaa nun yàlla dammarnaahum faagaagal nan leen wa qawmahum ak seen ajmaina ñoom ñëpp fa tilka yii ngeen di seen buyutuhum mooy seen kër yi xaawiyatan bi ma zalamu mi ngi wéer kenn dëkk fa ndax ay tooñkat lañ woon fa tilka masaakinuhum lam tuskan min baadihim illa qalil dëkkuwaay yaa ngi ni kenn dëkkatu ci gis nga mooy seetaan yenn musée yi muy mataaxit yi ñuy denc jeexintali jullit yi photo ya fa nekk di la won ñoom seen dëkkuwaay yi ni meloon am na benn borom xam-xam bu taalif benn téere tuddee ko sukmul maasiya musiba yi nekk ci def bàkkaar am na ay image yu mu indi foofu ci téere boobu image yoo xam da lay wan ñoom seen dëkkuwaay yi nin meloon wallahi muy dëkkuwaay yu sophistiqué yoo xam ni ñun laa wax bu ñu gisoon dëkkuwaay yooyee dañuy bëgg dëkk ca yooyee bàyyi suñ yii ñuy karlee ka rafet rafetal te xoolal jamono ji yàgg jooju suñu borom muy dëkkuwaay yaa ngi nii xaawiyatan bimaa zalamu mi ngi wéer ndax dañ doon tooñ aaya jii da nga ciy déggee ni bàkkaar day tas kër bàkkaar day tas kër ndax ñii seeni bàkkaar moo tax suñu borom tas seeni kër ñoom ñëpp bàkkaar day tas kër gis nga doomu aadama jigéen mën naa am ak jëkkëram problème mu wàcc góor am ak problème ak soxna mu ñaan fa baat wala nga am problème fa ngay liggéeyee te fekk li la ko teg bàkkaar la yàlla seedana boo delloo ci addaa wa dawaa bu ibn alqayim jàngoro jeeg la koy saafara wax na ci bàkkaar lu bare bare bare bare bare bañ ci dayoo boo demee ci aataaru sunub wal maasi bu ibn taymiya jeexintali bàkkaar ci société ak jeexintali bàkkaar ci nit ki day lëndëmal sa xol